dëkkal diine l'islam ñuy ay wu togal mag ñi ci seen liggéey bu rafet yalla yalla sam ñepp defal leen wér ak ta samal leen seen njaboot di ñaanal réew mi yalla ci yalla wis jàmm suñu borom defal nu jubo tapé xol yi Sénégal jamm rek ci xaj yalla nu am jamm yalla na ay yépp jeex ñu nekk ci jamm te ñepp delu ci seen yitte nu ngi ziyaara bu baax boroom kër gi sëriñ Ahmadou Mbàkke yu fay di ñaan sunu boroom dolli ko taxawu euh, taxawu mbokk yi ci kër gi yëpp di ko jàppale ci liggéey bi ku mel ni sëriñ Seex Balla Coro Sàmb di mag mu baax mu laabir mu jàppale jëwrin waaye mu uuf njaboot ji yàlla yàlla sàmb ko nuyu bu baax a baax sëriñ Mbàkke Mbóoj ci réalisation yi waaye beral nuyoo sëñ Abdou juuf nekkal nu ci xarale ji nuyu Pape seex Bey ci caméra bi ak sëñ Mansour Bamba Gueye ziyaara ñi ci kër gi yépp di ci yëngoo xam ngeen ni àllarba bu jot nu ngi ànd jataay bi ak sunu rakk sunu soppe maam Cheikh Anta Samb waaye tey mu nekk ci ay yitte ndax xam ngeen ni niki ginnaaw ëllëg rek ci lañu ñu war a taxawu liggéey bu tedd boobee di ubbi jumaay daaru salaam ci dëkk bu tedd boobu nga xam ni moom la cheikhul xadim njëkk am ci dëkk waaye di dëkk boo xam ni moom la sëriñ touba njëkk rafaatale rakam jëmu gërëm biir ak biti di maam cheikh anta mbàkke borom daaru salaam ak gaawaan radiallahu taala anhu jambar ju baax maamam àndoon ak maam cheikh anta gëmoon ko wóolu woon ko di seexam di cheikh ibrahima dia setem bu baax bi di seigne abdullah Dia Seniko jël ci wërsegam taxaw liggéey bob ba mu sotti lu war ko ubbi niki ki ëlëk ta xam ngeen ni maam Cheikh Anta sambu mom lu mu am daru salam la maam Cheikh Anta ay turandom di leppam moo tax nag mu xawa xat tay ngir dem taxawal ñu fofa ñu nit ñu wéyal émission bi rek ta xam ni ñoko ko nekkal fi mu nekkal lu fële waye yeena ngi di and ak ñun ñaar ñëpp kon ñu koy sante bu baax di ko diko ñaanal ñaanal sëñ Abdoulaye Dia mi taxawu liggéey boobu yàlla li ko sutura li ko xéewal ku baax daal ci lu baax képp lay nekk ci lu baax rekk lay jëmee wërsëgam ndax bàyyi xel ca bisu pay ga bu nu àggee ca yow ma tubla sara iru bis ba nga xam ni moom lépp ay feeñ bis boobee ña nekkoon ci yu baax di ci financé rek ñoo fay séentu nag payu sunu borom kon alhamdulilah ba ma ko xamee di doomu daara limu am lépp mu koy def ci daara di taxawu alquran waye di taxawu tam lépp lu aju ci masajid yi lépp lu aju ci ndonga daara yi yalla yàlla sam ko yalla yàlla fay ko alquran dafa waxon ci suratu ca sóotu taaxa wa man aarad an dikri fa inna lahu maisatan dankan wa naasuruhu yowma alqiyamati ama qaala bi li ma ashartani ama wax kuntu basiran qaala kazalika atatka ayatuna mu ngi noonu ah, sunu borom nee na bisa ngi ñëw boo xam ni danañu dekkal ñenn ci jaam ñi ñoo xam ni dañoo dummóoyu woon ci sama woote bii di alquran ak lu baax buñ leen dekkalee nag dañuy gumba foofee ca bis penc ba duñu mën a dox jëm ci seen borom ndax duñu nekkati njàccaar ñu gis su boobaa ñu naan borom bi lu tax nga dekkal nu tey ñu nekk ay silmaxa te bi ñuy dund ci àdduna njàccaar la ñu woon sunu borom ni noonu tamit daa leen joxe woon samay preuve waxoon leen samay aayaat waxoon leen samay màndarga waxoon leen li ma bëgg ngeen du mooy lu baax loolu wan ko ginnaaw man nag dama fàtte man yàlla waaye tey dama leen di fàtte fàttelu fii bàyyi leen ci sama mugal yàlla nañ ci yàlla musal kon képp ko yàlla dénkati teranga jo xamni ni melni da la jox bóoli jox say morom palaat te defaloo borom bi lutax nga yayo bóoli ñom tam defuñu ko lutax ñu yayo ay palaat borom bi def lay séddaleloo boo séddalewut nak amna na fulla ju toll ni day nangu sa bóoli jox la palaat ñu lay kon képp ko yalla mané gan war nga di gestu ndigal suñu borom di taxawul Islam di taxawul lu ndokk ba ko Abdoulaye Dia xamee yàlla na ko yàlla sàmm te taxawu ko moog ñi mel ni moom ndax réew mi tubarkal la bari na ay jëfkat yu baax yoo xam ni seen alal bi mu leen lewee doom dañ koo def fu baax duñ ko def mukk fu bon ñooñu nag ñu jara encouragé lañu ñu jara ñaanal lañu ñu jara bége lañu ndax loolu rekk nag mooy liggéey bi fexe ba sa alal nga koy def fu baax ndax yàlla noonu na wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin taj inda allah wa xayrun wa azamu ajra waxoon na nee na lépp loo xam ne jiital ngeen ko ci yu baax dinaa leen ko dencal su ngeen faatoo ba ñëw barzaq di ngeen koy fekkaat mu taxaw di leen xaar te su ngeen ñëwee la ngeen jëfoon ci lu baax dama koy multiplier ba mu nekk yool bu gën a rëy gën a màgg ma joxaat leen ko ndax yéen a ko mérité liggéey ko kon loolu mat a bàyyi xel la te ñi ragal a dépensé tamit faaw ku ne ci àdduna di nga dépensé soit nga def ko ci lu bon wala ci lu baax waaye fala budda kon nag ñi ragal tam nañu xam ni wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlifuhu wa huwa xayru raziqin yàlla nee na li ngeen dépensé te yàlla tax def ko ci lu baax dinaa leen ko wuutaleeg lu ko gën fuuf tëpp ko ndax yéen da ngeen di mën-mën lu rek mënu leen man yàlla nag damaa tëlewul ci dara mën naa lépp kon lu ngeen dépensé te rek yàlla dina ko wuutaleeg lu ko gën ndax yàlla mooy aji wërsëgal ji nga xam lu waaye am moo la ko jox yàlla na ñu dégg wax yooyu te góorgóorlu gaaw ci dajale tuyaaba góorgóorlu gaaw ci jëf yu baax góor góor lu gaaw jëm ci saraxe balaa sunu dëyal di mat ñu taxaw di wax ña doon réccu naan yàlla aka neexoon nga yeexeenu ñu dellu siwaat ci àdduna dabu ci wat aw yiw wax ji bari waye c'est fini lim la programmer lon ci dundu matna kon bala muy mat rek farlu dafa war ci kep ko am xel ni jema dépenser dépensé fu baax ndax nak projet yi mom du fi juk waaw nit ku dé rek bayyi fi ay mébét waye nañu xol projet diiné yi ñuy gor gor di ci def suñu wërseuk déggé serigne Touba ñaanam muni bil mustafa لي بنى القدوس مدرسة بها يزول الأذى والجهل والكمد كلماح بشير ci darajey Moustapha de yàlla dina ma tabaxal université boo xam ni école bu mag boo xam ni dafay dàqoo ak lépp luy réeraange di dàqoo ak lépp loo xam ni coono la wala lor la di dàqoo ak lépp loo xam ni njàqare la kon bam ko ñaané fekk na yàlla may ko ko ba nopi ndax buñu faté ni sëñ touba wax na ni borom bi néna ko loy bëgg ñaan bo talalé sa loxo rek man la fobal wa maddali al husna wa maddali zayat wa li yaqulu haka qabla maddi wa néna nee na maddali al xusna yàlla daf may tabel dima jox dima talal lépp lu rafet maddali al husna wa maddali zayat lepp luy waral ak ndolleen ak bénéfice yàlla dama koy tàllal dima ko jox moom borom bi dama ko tabe man borom bi nga xam ni li lii daf may wax man sëñ Tuuba xëëka jàppaleew Cheikh Mat Bamba kabla mat di yàpp lu jiitu may tàllal sama lox kon sëñ touba yi muy ñaan dafa fekk mu am ba nopp yàlla may ko ko léegi nag ku yàlla nar a dimbali faaw mu boole la ci ñi nga xam ne yaay góorgóorlu ba réalisation ci zahir bu loolu di feeñ nga bokk ci ñi nga xam ñoo ko am ci sag bokk ci loolu lu mat a bàyyi xel lu mat a dégg la waaw àdduna yàggul te li muy yàggadi yàggadi doomu aadama doomu aadamaa gën a yàggadi ndax àdduna yàgg na fi doomu aadama amul àdduna dina fi yàggaat doomu aadama du am doomu aadama tamit yàggul te li muy yàgga yàggadi yàggadi mën-mënam moo ko gën a yàggadi ndax doomu aadama bu juddoo dina fi yàgg lool du man dara fi mu ne coow li bi dëgëree rek toll ni nga toll nga commencé di bëgg a yeb borom bi waaye am na moment boo xam ni kenn wéttaliwu ko ci ni mu la doon forger di la defar di la toppatoo waaw di la toppatoo euh, sabbi isma sabbi isma rabbika allazi ala isma rabbika ala allazi xalaqa fa sawa walla bëgg a wax xalaqa fa sawa waaw allazi qadara fa hada kon foofa yàlla rek kay dogal waaw sabbi isma rabbikal a'la allazi xalaqa fa sawwa waaw gis nga yàlla mooy sàkk nit ki yàlla moom moo koy niral moo koy sellal defar ko lépp ni mu ko bëggee waaw allazi qadara fa hada yàlla moom mooy dogal ci moom moo koy jubal tam bu ko soobee kon jaam bi temps bu gàtt gàtt gàtt lay mën di lu tuutee tuutee tuuti kon yàggul àdduna boo xoolee fële ca suratul mursalaat والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناصرات نسبا فالفارقات فرقا فالذكر آه، فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم تمسك واذا السماء فرجت واذا الجبال نزفت واذا الرسل اقتت لاي يوم اجرت ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين الم نهلك الاولين ثم نهلك الاخرين كذلك نفعل بالمجرمين wal yawmi izil mukazzibin alam nakhluqukum min ma'in mahinin mu alam nakhluqukum min ma'in mahinin faj'alnahu fi qararin makinin ila qadarin ma'lumin fa qadarna fa ni'mal qadirun kon doomu adama am na moment boo xam ni du woon dara ndox su ñàkk solo lay doon soo xam ni ku mu takk nga dem sangu ji nga dem raxasu ji waaw muy man nga xam du woon dara moom doomu adama yàlla nee na ndox mu doyee di mu tuuti moomee ma la sàkke maa ko jël dugal ko ci biiru jigéen bàyyi ko fa nag biir bu ma neex ñu may dogale muy ëmbub jigéen ba sa dole war a jot ma wàcce la ci àdduna nga ñëw ma door laa néeral jamono boobee nag nga juddu ba ba ngay dëgër di mën a dox sax xamoo dara mënoo dara foofu fépp yàlla borom bi képp moo la fa wéttali benn gaan joxewu fa loxoom moo tax yëpp yàlla waru gis nga diggante boobu suñu borom di la toppatoo ba nga ñëw ci làng gi door di xool di xàmmeek di mën a dégg man di wax ndànk-ndànk di mën a jëf di detteelu di daanu parents yi di leen di la gunge ba nga xawa a manus dara kooku boo taxawee di balballu ba nga yeb borom bi mooy dof nga waaw dof nga sa xam-xam bariwul sa xalaat soriwul moo tax doomu aadama kon mën-mënam lu gàtt la muy diggante boobu su yàggee tam ci àdduna ba na mu fay jógee dina màgget ba ñëpp a koy abandonné waaw day mujj léeg-léeg xale yu ndaw la ñuy wax dañuy wéttali seen maam waaw lu mu lu lu mu lekkati di ko saf yaram waa ngi commencé di am ay maladies yu bari ci dajaloo ci moom dootul wér di detteelu màgget di naax kon ci tële lay mujjewaat su paree ci tële boobu tawat dee dikkaat bu ñu ko bàyyee ci kër gi vingt quatre heures wala quarante huit heures kenn génne ko mu yàq fa waaw ñuy wuti glace ci teg ak di ko jàppoo war koo yóbbu ca sëg ya mu war a wéet ak borom bi ko sàkkoon kon doomu aadama war te bal ballu wàcce boppam ak yaru képp a ko war waaw moo tax sëñ Mbay Jaxate mu man nee woy mu ni fàttee ka bon fàtte dee rek kay waral nit a beew bu dul ko nag fàtte dee kenn dootu reew ak a beew budul ko nak fatte de ken dootu am lu ko saf ken dootu am lu ko de waral ko ne sew ko xamni xam na ni dee ngi ñew te faaw mu ñew ne nem rek ko war tay jema taw yefi ndaw tubuk moy ak yaru mo war kep ko meuna gis de gaangi dakk te day jot ñep ken du ko raw lo meun meuni telebis lo wax waxit ni selaw lo sante sante ni mbass loo maare maare ni cam loo jaglu-jaglu tawat àdduna yeewu ci yow kon mu ngi doon nit fi muy jóge yëpp phase bu mu jógee rek mu ngi tàbbi ci bi ci des kon àdduna lu gàtt gàtt la ah ñu war a góor góorlu ci waajal suñu diggante ak borom bi liñ koy waajale nag mooy lépp luñ la wax day maye toyaaba day maye yool bul ci xeet dara lépp luy waral mbugalu suñu boroom bul ci xeet dara ba jëf ko waaw kon su ko defee régler suñu bopp lépp lu nu yàlla wërsëgal ñu fas yéene koo bokk tey xool yu baax yi yàlla yi gërëm ñu koy tàbbal sunu alal waa ni àdduna yàggul loo am ci àdduna ko ëppale woon mu ngi fi tey lépp jaar na jàll waaw tey lépp jaar na jàll waaw loolu ñu bàyyi ko xel bu baax lépp jaar na jàll góor góorgóorlu nag ci euh, li ñuy wax ak tawakulu ak al iktisaab waaw xam nga léegi nit ki am na loolu yow la war bi la yàlla sàkkee jox la am xel jox la ay tànk wax la ni wutil waaw wabtaxu min fadlillahi yàlla nee wut leen ci sama ngëneel léegi nag kon wutil mooy sabablu rek waaw kooku mooy al iktisaab yow yaay jéem a wut loo fàggul sa bopp waaye nag bul jàpp ne yaay jox sa bopp lu ca jóge nag ginnaaw bi nga sababloo nga def nag al tawakkulu wakiilu ci yàlla waa tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax ni al iktisaabu sunnati waaye wa tawakkulu xaal yi waaw nee na fàggu fàggu mooy sama pratique fu ma toll ci fàggu waaye sama mbir dëkkantaan nag mooy wakkiilu ci borom bi ndax yàlla mooy jox jaamam lu ko soob waaye rek li nu war moom feeg ñu ngi fi rek ñaara fi nekk muy lu am solo dualité boobu ñaara fi nekk liggéey ak jaamu yàlla waa moo tax am na ku ñëw ci cheikhul xadim bis radiallahu anhu ni ko sama bay, dafa genn aduna, sama nday genn aduna, sama nijaay génn aduna. amatuma kenn mbàkke ma bëgg tok sa kër def la nday def la baay def la nijaay sëñ bi ni ko jarul tok fenn kay ma wax la yoon jugal delu ci kër ga so demee denk na la na nga jël jaamu yalla def ko sa baay nga jël liggéey def ko sa nday nga jël doylu def ko sa nijaay te ngay ñew di ma ziaré joju wax na aduna wax ju siiw jooju am na sax ñu ne yonent bi alayhi salaam moo ko wax ni jaamu leen yàlla ba mel ni suba ngeen di faatu te ngeen fàggu liggéey ba mel ni da ngeen di sax ci àdduna kon yaar yooyu rek ñoo fi nekk ñu góorgóorlu ci waaw góorgóorlu suñu digganteeg suñu boroom te bàyyi ko xel te xam ni nag boo ko bàyyiwul xel it bu la tegee lu tuuti ci metti di ko bàyyi xel la sëriñ Saaliw radiyallahu ko daan wax yàlla moom koo gis mu koy fàtte rek mooy daa nekk ci jàmm nekk ci wér waaye ku mu fàttali boppam léegi nga fàttali ko ndax ko la tegee lu tuuti rek léegi nga jëme sa xel ci borom bi loolu nag balaa muy dikk mu ñuy teg yooyu ñu nekk ci li ñu war a nekk di ko fàttaliku fàttaliku borom bi nag mooy saa boo wéree na nga bàyyi xel ni wéradee ciy topp saa boo amee jot na nga xam ni ñàkk jote ciy topp saa boo amee ndaw na nga xam ni ak magee ciy topp saa boo amee na nga xam ni ñàkk a ciy topp saa dund na nga xam ni deeba ciy topp loolu képp ku koy bàyyi xel loo ci nekkati di nga koy yemale waaw yàlla gënal la lépp diine gënal la lépp ndax moom rek ay mujj moom rek kay mujj ci la ñuy mujje ñun ñëpp nañ ci góor góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax rafetal jikko yi waa rafetal jikko yi ndax jikko rek a taxoon yanant bi alayhi salaatu wasalaam sonnoon bëgg ñépp rek jaar ci jikko yu rafet yi ko yàlla tagge waaw innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaqi waaw dañ maa dañ maa yónni si man yanant bi alayhi salaatu wasalaam ngir ma ñëw mottali jikko yu rafet yi jikko kon mooy lépp nañ ci góorgóorlu boo demee ci sóoratu nuun nuun wal qalam da fekk yàlla ne ko wa innaka la ala xuluqin azim waaw wa innaka la ala xuluqin azim yow yarantu bi jikko yu rafet yep yu tedd ya nek nekk ca kaw yaa nekk ca baxtal la wa kon jikko la ko yàlla tagge gor góorgóorlu ci jikko yoyu senegal war gor góorgóorlu bu baax ci jikko ak comportement yi waaye nit ñi boy seetu yi ñi wax ak nit ñi yak as gor ak ni ñuy nit ak nit ñi ñak sutural sen mbokk julit da ngay tiit ci réew moo xam ni nee plus de 95% de musulmans te wiññi as gor weer as gor tooñ fayantu yàqante bañante yooyu rek ngay dégg ci dëkk bi ak wax yu ñaaw da ngay mujj sax da ngay tiit waaw day mel ni daal bi bi alayhi salaatu wasalaam doon jàngale jamono ci jikko yi mu Sénégal fi rek nga ya dañ leen tudde ay réewi nasaran dañ ñoo raw ci ay comportement ci koy rafet ba da ngay waaru waaw nasaraan rek ngay gis nga dara tuddu nit mu la non non lool loolu ma concerne pas c'est sa vie privée waaw sama yu sa n'importe peu nopi ci sénégal da ngay gis kuy xey suba ba ngor ci as gor lay ya nga diw li mu def nga diw li mu wax di yak as gor suba ba ngor te do ci amé benn tuyaba ay bàkkaar kep nga ci dajalé waaw te lu yalla bañ la lu yalla bañ la ndax am na àq xam day dox sa digg ak nit dafa am ak yu dox sa ak nit yoy bala nga jéggi sirat di nga fay ak yoy ak ko mën doon ak fo mën a làqoo di nga yi nga togn sa digganteeg fek feeg lako dang ko layo ak mom ëllëg ta rew mi bayu ñu yoy xel ngay gis ko xamni ni yitteem yépp ci problème mu lay nek suba ba ngor waaw te mën naa sax kamay waxal problème ben la xam ci mom mom ni ngay waxal problème mu ngi junniy problème bayyi bopam nek ci as gor di ko rek suba ba ngor di jewante di ngagnante di rebeunte di bañante di xex ha ah, di yak di togn duñu jéggale yooyu yépp ngi ci jikkoy nit ñi kon yalla nu yalla sam te delo ci xel yi ñu golu rew mi rëyul wax deug yalla rew mi rëyul ta ko fi togn wala nga def ko nangam bo sété sax ñaari mbokk ngeen di doon kon nan rafetal jikko yi bëggante te yàlla tax te xam ni àdduna yàggul ana ñu baax ñu ñu gënoon foofu ñu ci biir suuf yi jeexal nañu waaw te cheikhul xaddim wax na ca masaalikul jinaan fii jam'i ma farraquhu daymaan nee na ñi ci bàmmeel yi benn itte képp a not ci seen itte yi mooy siwaat ci àdduna sàkku siwaat tuyaaba waaw siwaat ci àdduna dabu siwaat ay tuyaaba yu leen rawoon moom la ñuy dee gën a bëgg fi mu ne nii bu ñu mënoon a am possibilité jël si ci àdduna ak dund jii leen raw dañuy gaaw jël siwaat wut si ay tuyaaba mu ni kon yow miy dund déew a góo sa itte bu mu nekk ci tooñ ak yàqu su gor ak njëkkante àdduna waaye sa itte na nekk ci fas yéenee gaaw dajale ay tuyaaba dajale ay yiiw bala ngay dem ci biir bàmmeel te moom mi nu digal loolu sëñ Tuubaa gis ngeen li mu waxoon nee na man samay cër man sëñ Touba samay cër mësta jeng jëm ci lu yàlla sib wala lu mu tere sama cër mësu ko def waaw laysat jawaarihii laysat jawaarihii tamiilu lil xaraam wala li makruhin wa xustu bil maraam waaw sëñ Touba nee na samay cër mësta jeng jëm ci lu borom bi bañ wala mu jeng jëm ci lu mu sib sax te làq naa lépp luy sama càkkutéef loolu ku ko mel loo bëgg am waaw kon loolu lañu ñu loo bëgg ñu góorgóorlu ci nee na moom Seexul Xaddiim bépp nokki bu ko yàlla jox ci àdduna fexe na ba nokk ko ci lu yàlla gërëm ba nga xam ni saa su nokkee ñu bindal ko tuyaaba nokkeem bu ne borom bi di ko ci bindal tuyaaba nee na te borom bi aar na ko sàmm ko ba du dem ci dara loo xam ne laal na sobe euh, katabali sawaaba fii kulli nafas ensemeni mina rukkooni li najas kon sëñ Tuubaa mooy kook waaw loolu nag waaw bu ñu yem ci waaru ci ket dañu góor góor di jéem a roy di roy lu baax waaw dañu góor di jéem a roy lu baax waaw fas yéene nag bu ëllëgee ñu am fu ñu féete sëñ Tuubaa bis ba jotee ñu ne ana nga ñu Seexul Xaddiim ana ñu ko yaakaaroon ci àdduna ñu mën a taxaw di ramm ay jullit mala taxaw am fa dayo boo xam ni day dañuy pookaréewu waaye ñun li ñuy def mooy pookaréewoo sëriñ bi te suñu jikko jéemuñu ko defar ngir sëriñ bi mën ñoo pookaréewoo ci mboolem nitu yàlla yi ni ñii ñooy sama ñoñ ñii ñooy murit yi ma yaakaar loolu lu mat a bàyyi xel kon ñun murit yi ñooy tiitaroo sëriñ bi rek waaye nañu góorgóorlu ci jikko ba ëllëg sëriñ bi bu taxawalee njabootam ni ñii ñooy sama njaboot ñu mën ñu caa séen sëñ bi daal ñuy tiitaroo yooyu nag góorgóorlu ci jaamu yàlla góor góorlu ci njub góorgóorlu ci wax yiiw yéene yiiw di jëf yiiw góorgóorlu ci joxe ci yoonu yàlla bëgg lu baax am ci yitte fas yéene dox jëm ci kanam lu am solo la kon yàlla nañ ci yàlla defal jàppandal ah, nu ngi sant mbokk yi fi ñëwoon léegi di waa ndànd xam ngeen ni le 27 incha allahu taala mooy seen gàmm gu mag googu di am ca ndànd ah bërëb boobee nga xam ni bërëbu maam Cheikh isa jenn la bërëbu maam Cheikh Ibrahima Fall la ah, bërëbu sëñ Mor Ngone Fall la bërëbu sëñ Mor Ndiaye Taggaar la bari na lool ci wàllu yi ñoo xam ni wet googu lañ féete te nekkoon ci jàmbaari Serigne Touba yi ñu ngi waajal seen gàmm gi ndànd muy gàmm gu am solo goo xam ni génn guddi gi sunu mbokk tiijaan yi ñoo koy jagoo geneen guddi gi sunu mbokk murit yi ñoo koy mu nekk ñaari guddi kon su ko defee ñu bàyyi ko xel man incha allah amal waxtaanu murid yi ci guddi gi leen jagleel alaaji cheikh diom baye mu man mee jàng te bëgg sëñ Tuuba am moo koy fanaane ñu bàyyi ko xel kon samedi lay doon waaw xam naa ngoon gi dinaa dem fatik incha allah defal leen waxtaan dañu toll ci tàkkusaan gi su ma fa jugee rek incha allah maa ngi jëm ndànd parce que yéene ko ànd ak ñoom yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm te àggale yéene yi waaw ndax gàmm la gu am solo boo xam ni Euh, benn la ci réew mi waaw euh, te loolu nag euh, ëpp na rate yàlla lu ci yàlla yóbbu ak jàmm ñu ngi ciy wookoon soppe yi rawatina yi féete ci wet googu niki noonu tam ñu ngi sant bu baax man Mansour su fekkee dégg nañu mu jéem ñoo dugalal yenn image yu am solo yoo xam ni keroog lañ ko jël bi nga xamee ni mbokk yu baax yi ñom señ As Ndiaye ca Géejawaay marché bu bes ñom Oustaz aliou Ngom ñom imam Amdi Kan ñom imam señ Cheikh sar waroom xam-xam yu mak yoy nga xamni ne ay taalibe lañ ay murit lañ di ay model kéro dañ ma defal surprise yu rëy ndaysan señ As ndjay mu bax ñu murit sadiq li ma bëgg rek jappal la genn yend go xamni aljuma balé la ngi ya faxé aksi fi ak mbokk yi nu def suñuy bernde waxtaane Serigne Touba ba ngoon waaw tubaarkàlla kawaa gi mbokk yi ñëw faak doole te daaga ju nekk sëñ As Ndiaye defal ma ko fa keroog ngir jëmmi sëñ Touba muy kóllëre bu yàgg boo xam ne yàllaa nu boole sëriñ Touba képp nu boole muy ku bëgg sëñ Touba di ko dund di boroom xam-xam bu jëfandikoo xam-xamam waaw mu foofee ca marché bu bees Géejawaay boroom xam-xam bu jëfandikoo xam-xamam moo tax keroog aljuma ji ñëpp a bég ndeysaan jabar fa ñu defé defee yi fi njaayeen yendu fa ba waxtane ko tedd ki ku ne di indi sa xalaat ak sa xam-xam ñu dajé fofu muy jappay bu am solo ma ngi leen di ñaan sax ngat ñom ñooñu bëgg ko defé sama kër fële ci almadi 2 bëgg ñu def délégation ñomit ñew su ko defé ñu bernde waxtane sëriñ bi ba lu nu waxtu yi may rek inshallah lool lepp kon di kóllëre di lu baax li nga xamné rek lool lañu xam ci lañu mësa mës a nekk waaw kon alhamdulilah yàlla bu ñu cat waaw ndax loolu rek mooy dëgg ñu ngi santaat sëñ As Ndiaye di fedd li kóllëre gi di ko ñaanal ñaanal ay soxnaam